mane ko dina neex ba yegg ci lool waaye nag bébé tey am nga combat de booy bii ngay bëri dafa am fit. milk soo mayal xaalis yow milk garmi la kii garmi la milk garmi la. mi ngi mel ne xar joxe naa kii li muy wax nii du làmb ji. kii nekkul man ak moom. waa waa Géejawaay laay wax ni sama mafia man ak ñoom tas na. benn papa laa fa am muy Balla Gaye 2 jeex na kii du man ak moom man ak njaga doole mais indi ko la maag njaga mee la mais du man ak moom de barki Serigne Touba maag la si combat Pam Ndoy bi combat Pam Ndoy ak qualifié 2 bi dama siy bëre waat te maag njaga ñoo mais nekkul man ak yow maag sa patron la dama la dama koy laaj Milkzo yow fan nga dëkk foo dëkk laa foo dëkk Kër Massar waaw amul mbër am na mbër kay Kër Massar kan mooy mbër moom mi moom kan mooy mbër bi kii onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëfe Serigne Touba hmm. ginnaaw buñ sante yàlla julli jonti bi e maa ngi sant suma ñaari waajur di sant suma euh, di sant suma yaay ñaanalaat suma yaay di ñaanal suma papa fi mu nekk yàlla na ko gën a fi mu jóge di sant sama copain Ndiaga Doore suma xarit suma doom ndey sant Mbaye Diagne di sant Billy Boy di sant Bada di ko ñaanal la yàlla may ndam barke Seydina Mohamed. waaw billaahi wallaahi taala kii dama koy daal. Ah. barke alxuraanu karim dama koy daal. Ah. ñaari komba sama ñaari combat yi ne sama trois combat laa am Lamine. kii du mbëru dara man fi ma teg sama bët du kii moo may téye ñetti avance lan ma jox ñetti avance. bi mooy première dama ci yoon bi dama ciy bëre. man la réew mi bëgg man. Ah, yow rek sam so barke Seydina Mohamed te kaa xamal leen. wër na yàlla maay waaj lu doy waar taxawal bul def dara maa maa la mën maa la ëpp dinaa la duma naa la daan barke Serigne Ousseynou Mbacke dama la. ñaata paan soo nga wayal. instant yi ma xool wala loolu non instant yi 66 paan dama wax ni ko nekk am na vaar. bu yàlla dinaa ko yóbbu vaar. dama lay daan yow amoo xam-xam bu ma daan. yow tàppet nga ragal nga doo gis ku su ma nekkee ragal su ma nekkee ragal ñi ma yar ñee xam nañ ko patron bee nee naa wax moo ma yar du sigi xool ma yaa ngi comprendre su ma nekkee ragal xam na su ma déglu ma rek da ngay wax da ngay déglu kii tey tey xamul ma fi indi tey tey xamul ma fi indi tey xamul ma fi indi ñëw sant ñi may jàppale ndax combat bi samedi la ñëw sant moom fi indi ak ñi may jëndal billet tey ñoom fi indi waaw ah, dama ciy dama déglu ma ngay yeewoo da nga ko da nga leen di sant deeji boole waa Kër Massar amu leen bër sama entraîneur mu ceer bu buun taxaw foofu ñëpp laay sama entraîneur ceer bu buun égri ñoom përiña ceer dafa jeexal waa Géejawaay dafa daan guy gi daan marle daan saacees même Siteu moo ko daan moom ñoom përiña waaw saacees menn saacees menn saacees mi ma yer mi ma yer defal ma lépp ceer da koo daan sama kanam mooy maa ko yóbbu ma nekk xale bu ndaw kooku moo ma yor moo ñëw lan moo ko fa jëlee fan gaale ba gaale bi muy tiitaroo lan moo ko fi jële damaa jóge kii moo gën a eh, gaaw meles eh, kii moom ñoo ñoo far de maytul sa poos yi eh. mooy mooy Milka Sow Lamine xam nga keroog dama déglu benn interview am mu naan Balla Gaye 2 daf lay wër ne Balla Gaye 2 daf lay wër kii Ndiaga xam na si dara déglu ma rek déglu ma rek muy wax noonu làmb lañu fekk man ak moom kon jarul di sos di yàq der quoi yaa ngi comprendre kii man a moom làmb lañu sekk ëllëg dañuy rombante tamit tuddal lu nekk yaa ngi comprendre Balla Gaye man du ma jógee bundu këram barke Serigne Saliou sama njaga dool sax ma romb ko bundu place sama waa kër yëpp golf la ñuy yeewoo na ma bàyyi ma woo ñi may jàppale dama nuyoo pare damay woo waa Kër Massar buun yëpp damay di woo sama famille jabar ah. yaa ngi comprendre di woo 100 pour cent di woo waa buun Mansour Mbaye di ñaanal Jackson numéro 2 yàlla na ko yàlla Matar mais dama koy woo Matar Seck waaw di woo Yaya chauffeur camion buy ànd ak ñoom Bamba di woo mafia fils de Falla bi di woo waa Fatick Jibi Jibi Diouf maa ngi lay woo di woo waa Ñaaxar Tafa Diouf Jibi Diouf maa ngi lay woo yaag sa maire yëpp Fatick gis naa ni ngeen may jàppale bu baax a baax barki Serigne Saliou kii dinaa ko yóbbu faar kii maa ko dàq bëre maa ko gën a saf mbër maa ko gën a kii tànkam yu dëng yi di mel ni pengu wee noonu xam naa pengu yow boo mënoon nga am benn victoire benn victoire nga am eh. kii huit combat la sept défaite kan la daan kan la daan. man ma boobu sax jël boobu daa tax suuf da boobu dañ koo daan ba pare arbitre bi lu ko yërëm ak défaite yu bëri moo tax mu jàppale ko. ay woote mais dama maa ngi woo waa Géejawaay ñëpp parce que man mbëru gox laa Géejawaay dan maa yónni yàkkamti ma aw ma dura taxaw fenn njaga doole damaa yónni yàkkamti ma te leen laa lay waxal xam nga wàññi nañ heure bi man damaa kontaan ngir yàlla ak yónent bi Malick Ndiaye na nga taxaw hmm. Malick Ndiaye. taxawal boo taxee ma dóor la nga daan far fos di woo waa Géejawaay di sant Lat Diop Lat Diop sama xarit sama doom yaay maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm. jërëjëf bébé Elton kontaan naa ci yow. bookum moom lama mi ma sañseel nii. moom la Sandaga ak Birima jërëjëf kontaan nañ ci moom Babacar bu la ma maa lay sant bu baax moo ma sañseel lii sañseel sama doomu ndey. yéen a nuróole Serigne moo ma sañseel fu ma jëm moo may sañseel. Superman maa ngi koy sant di sant moom lama di sant Pape Diaw Cheikh Ndiaye. mu la ku daan sant ndongo daan yaa daan. ñeex borom Massa Dior 200 t-shirt may. Ousmane Niang di sant ndongo Colobane. jërëjëf sant may eh, eh, sa eh, doy na nag waaw doy na doy na. may sa sant yàlla bu doy na doy ma. Coly